ok alhamdulillah wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain ñu ngi sant suñu boroom subhanahu wa taala ci mu defal ñu tawfiq ñu mën a daje ci ab néegam di fas yéene fàttaliku lenn ci njàngalem am yonentam sallallahu alayhi wa alihi wa sallam di ko sukkandikoo ci téere bi ñu tuddee bulughul maram ki ko dajale di alxaafiz ibnu hajar rahimahullah mu ñuy tënkal loo xame ni nii képp koo xame ni nii jàng na ko ba am ci dégg lalul jubluwaayam ci xam diineem dana mat looloo tax mu tudde ko bulughul maram la nga xam ne moo lay jotale sa bëgg-bëgg sa jubluwaay ci jullit bu nekk bëgg naa xam diineem ñu ngi sant suñu boroom it mbokk yu bari gannaaw ba yàlla dogalee teewewuñ ko it am na ñoo xam ni ñoo koy déglu ak fu ñu mën a nekk ci kaw suuf ñooñu it am ci ñoo xam ni ñoo dox suñu diggante ak ñoom ñooñu dox suñu diggante ak ñoom it yàlla dogaloon na daanaka ka nga xam ne moo ca jiitu di seen mbokk Babacar Sarr bi ngeen xam ñi ngi ko doon may tey soxna mu ànd ak soxna Adja Wilane ñoom ñépp ñuy ñaari doomi jullit yal na yàlla barkeel seen diggante ca génne ca njaboot gu barkeel guy taxawul islaam comme ñoom niñ koy taxawee mboolem ndawi jullit yi yépp it yal na yàlla dugal leen ci sëy yu barkeel yu leen di jëriñ àdduna di leen jëriñ àllaaxira ñi ngi suñu fukkeelu téere tey ak ñeent muy kitaabul qadaa ñi ngi noonu téere bi jàngale wàllu atte tey jii mooy ñetteelu fan ci rabiul awwal sun maam yi di ko tuddee weeru gàmmu mu tombeeg 11 novembre 2018 kitaabul qadaa ci xadis bu jëkk bi la ñuy jël an buraydata radiyallahu taala anhu qaal qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam
كتاب القضاء عن بريدة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القضاة ثلاثة اثنان في النار وواحد في الجنة رجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنة ورجل عرف الحق فلم يقض به وجار في الحكم فهو في النار ورجل لم يعرف الحق فقضى للناس على جهل فهو في النار رواه الأربعة وصححه الحاكم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين رواه أحمد والأربعة وصححه ابن خزيمة وابن حبان وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة فنعمة المرجعة وبئسة الفاطمة رواه البخاري وعن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر متفق عليه
mbokk ci xadis yi ñu jot a jël bi ci jiitu an buraydata رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم القضاة الثلاثة أتكدي دي نيتلنو إثنان في النار ñaar ña sawara lañ jëm wa waaxidun fil janna kenn ka mooy dem ajjana rajulun arafa alxaqa fa qadaa bi góor goo xam ne xam na dëgg mu atte ci dëgg ga fa huwa fil janna kooku day ajjana la jëm wa rajulun arafa alxaqa fa lam yaqdi bi góor goo xam ne nii moom xamul dëgg wala góor goo xam ne moom it xam na dëgg waaye atte woowu ca wa jaara fi lxukmu mu daal di jadd jeng ca atte ba fa huwa fi nnaar kooku it safara la jëm wa rajulun lam yaarif lxaq góor goo xam ne moom xamul dëgg fa qadaa linnaas mu atte ñel nit ñi ala jahlin ci ak réer fa huwa fi nnaar kookit mi ngi nekk ca nit sawara rawahu al arbaa wa saxahahu al xaakim mi ngi noonu kon mbokk lii mooy téereb atte di téere boo xam ni dañ koy jàng ndax suñu diine la aju ci lu aju suñu diine dañ ko war a xam waaye inna lillahi wa inna ilayhi rajiun tey jii quatre-vingt-dix-neuf pour cent ci réew yi nga xam ni ay jullit ñoo ko dëkkee atte woo wu ñu atte ba yàlla gërëm ngi noonu liñ ñi gëmloo mooy laïcité laïcité mooy lan mooy lépp lu aju ci wàllu diine kenn du ko dugal ci doxalinu réew mi kuy dund sa diine dund ko sa kër dund ko sa jàkk amaa doxalinu réew mi kaddu diine amu ci yoon loolu nag jural nañu ba tey suñu demoon ca fa ñuy attee lu ñu dañ ko fa wax ba mu des lii la yàlla wax lii la yonent yàlla wax doonte ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na kaw suuf ñetti nit rek a fi atte ñaar ñi safara lañ jëm ana kan mooy ki nga xam ni mooy dem ajjana mooy kenn ca ñoom kenn ca ñoom mooy kan ki xam atte bi yàlla gërëm ba pare attee ko masalan tey juge baa ngi nii ñu jàpp benn waay indi kii kat dafa violé dafa njaaloo ak jigéen ku mel noonu attekat bi lan lay xool ndax moom mas na sëy ñu ne déedéet mu ne kon nañ ko jël duma ko téeméeri yar ca pénc ba ndax moom mas na sëy ñu ne waaw mu ne kon moom nañ ko rey lii mooy atteb lislaam mais tey da ngay gis ne soo demoon ci dëkki jullit ñi waa ji def njaaloo su doon tene ne ak déggoo la caa am dara waru ko dara waru ko génn nga fii dajee xale bu jigéen ngeen carte cagaam ngeen ànd ci hôtel def leex ay gars ñëw na procureur am na benn waay bu tëjoog as ndaw fee ooyu le problème jeex na dara waru ko da koo violé ñu ne ah comme da koo violé nañ xool bu dee mag la violé mën nañ koo tëj cinq ans bu dee xale bu jigéen la mën nañ koo tëj dix ans bu dee ko gën a ndaw a ndaw mën nañ sax gën a kii yooyu mbokk loolu suñuy atte la loolu benn misaal rek laa ci jël ci suñuy atte rasul salaa sallam nee na waa ji xam dëgg di atte ci dëgg kii moo jëm àjjana amma ñaar ñi jëm sawara mooy ñan kii daa xam li yàlla bëgg atte bu ne xam na ko ki sàcc dañoo war a daga loxoom ki njaaloo dañ ko war a duma wala ñu rey ko doomu aadama bi masalan nekkoon ci lislaam génn ci attee boppam ki jël foqbatu nit atte boppam ila axiri ba pare moom mu wëlbatiku di attee nag la neex bakkanam ca bari na it lool soo demal suñ tribunaux yi fekk fa Ibrahim Muhammad Abdallah bu julli jotee ñu julli bu koor jotee ñu koor ñi ngeeg seen kaamil di jàng alquran di jàng aay yàlla di wax ci njaaloo di jàng aay yàlla di wax ci rey nit mais téewul bu ñuy atte atte la seen moroomu ñi tëral am déet yi nga noonu loolee mbokk dañuy gis ne ak kufr la lu mën a yóbbu doomu aadama bi sawara la doonte ne waxuñu ne ku fa toog di atte sawara la jëm waaye nañu xam ne la muy def moom atte la bu mën a yóbbu sawara ñetteel bi mooy kan mooy ki nga xam ne xamul luy luwa yàlla moom daal indi nañ ko atte mu xool lam gis moom wala la moroomu doomu aadamam gis mu atte ci kaw loolu kooku mën na am mu atte sax dëgg mën na mu atte dëgg masalan waa ji dafa rey nit biñ ñëwee ñu ne ko kii daa rey nit mu ne ah mu ne kon dañ koy rey comme ni mu amee dans quelques pays du monde ñuy appliquer peine de mort mais ndax loolu mu atte day tax mu ànd ngërëmal yàlla déedéet ndax bi muy atte saytu ci li yàlla bëgg moom dafa làmbute ci xelam ak xelu keneen looloo tax ki xamul moom di atte sawaun am na dëgg wala amul dëgg yépp ku mel noonu da ngay gis ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ah sawara la jëm lu dul yàlla dabantal ko ci yërmandeem suñu ñaareelu xadis ki koy nettali mooy abi hurayra radiyallahu anhu qaal qaal rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam man wulliya من ولي من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين képp ku ñu féetale yaa war a atte rendi nañ ko rendi gu àndul ak paaka rawahu ahmad wal arbaa wa saxaxahu ibnu xuzayma wa ibnu xibbaan mbokk dafa am lu dangereux loo xam ne su nit ñëpp xamoon bala ñoo am juge bi atte daañ dem fekk benn waay Salihu Ndiaye yow mi yaa ñu doy ci atte muy bañ ren ba déwén ñu forcé ko forcé ko muy doog a ñëw nangoo atte ndax danger bi nekk ci atte yeneen ci bàyyi sam ne ni képp koo xam ne yow fal nañ la ngay atte nit ñi mu ne yow day rendi nañ la te mu ne rendiwuñ la sax paaka xam ngeen mbokk rendi la ci gën a yomb mooy paaka am déet waaye xoolal koo xam ne ñu ko bëggoon rendee xeer wala koo xam ne ñu ko bëggoon a rendee ay we wala ay yu demee noonu ca mooy kon teg nañ ko lu garaaw a garaaw looloo tax bokk na liggéey yi gën a rëy ci kaw suuf bu gën a dangereux bu doomu aadama taxaw ci kaw suuf même boo doon état état islamique la mooy yow ñu boole la nga war a atte xoolal rek ma jox leen benn misaal bu gàtt bu ñu dund fan yi passé kii di sunu mbokk Alioune Badara Ndaw yal na yàlla sàmm ñu sàmm ko am na luñ ko jiiñ procureur de la république droit la jàng dossier boo xam ne ay at mu ngi ci def étude bi mu paree mu ne kii dañ ko war a tëj trente ans ki nga xam ne mooy juge bi war a atte moom it droit la jàng bi mu defee gëstu mu ne kii dañ ko war a bàyyi mu nibbi këram ñu bàyyi ko mu nibbi këram mais xool leen différence ñaar yooyu nga xam ne bu doon procureur bi moo toogal place juge bi da koy tëj trente ans loolu muy wane ne yow da ngay gis responsabilité bi ngay gàddu ci benn tëj ay innocent ak bàyyi ay coupable bàyyi ñoo xam ne def nañu nga bàyyi leen loolu lépp da ngay gis responsabilité juge bi la looloo tax yonent bi alayhi salaam ne kuñ ko fal day da ngay gis ne rendi nañ la xadisu ñetteel bi mooy bu abi hurayra ba tey wa anhu radiallahu taala anhu qaal qaala rasulullahi salallahu alayhi wa sallam innakum sa tahrisuuna ala al imaara jamono ngi ñëw da ngeen xéer ci bëgg a jiite mbooloo mi wa sa takuuna nadaamata yowma alqiyaama te dana nekk ricc gu rëy yowma alqiyaama mi ngi noonu fa ni'mal murdia aka baax ci koy nampal wa bi'sal fatima waaye aka bon ci ak feralam mi ngi noonu mbokk yonent bi alayhi salaam nee na jamono ngi ñëw nit ñi dañu xir pour nekk njiit Sénégal ñaata parti fi am yaakaar naa yi gën nañ trois cent di am déet mi ngi noonu élection présidentielle yi ñu jëm bu dul woon ak parité bi ñu ci teg est-ce que duñu yegg cent ah kay ah wala ñu passé cent kay ah kay yonent bi nag alayhi salatu wasalaam mu ne jamono ngi ñëw ku ne xër pour jiite waaye cey nañu xam ne day ricc gu rëy rëy ci yomal qiyaama ma ngay jóge ci ñu jiite woon nit ñi mu ne boo ci nekk ak a neex boo koy nàmp mooy boo ci jamono bi nga koy dund neex na ndax bokkan mbuur dafa neex tey jii foo jëm motar yi dar la foo jëm ñu xàjjal la lu la neex dogal ku la neex tëj ku la neex tijji lu neex la waaye mu ne cey boo ciy jógee ay mooy bis booy dee wan gannaaw nguur nga xam ne nguur a bon yaa ngi dégg bi sal fatima ak bon lu muy ferele gis ngeen loolu nag moo taxoon rasul sallam da daan wax ne suñu mbir mi la nuwalliya amrana hada ahadun xarisa alayhi talabahu aw xarisa alayhi képp koo xam ne dafa ñëw di laaj suñu mbir dañ ko jiite duñ ko jiital looloo tax ba képp koo xam ne ci loi islam dafa jóg ne gaa yi fan leen ma nekk buur kooku dañ ko war a éliminer d'avance islam ña nga xam ne ñooy borom xel yu mag yi ñoo war a daja xool ba jàpp ne diw mii de la ñu waroon a fal mu jiite ñu mu bañ ba sonn ñu ne ko fokk yaa ñuy jiite amma kaay leen ngeen fal ma yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ne képp ko daan fal leen ma duñ ko fal képp koo xam ne gis nañ ne it mi ngi xër pour ñu jox ko responsabilité ñun duñ ko jox responsabilité suma mbokk bilal ci am yal na yàlla sàmm ko nee na ca seen boori dëkk dafa benn góor bi gars yi dajalee coopérative bi daal di koy fal na ko yow lañ jox trésorier yaay téye xaalisu dëkk bi mu ne jërë ngeen jëf jox ngeen ma lu ma yàgg bëgg yaa ngi dégg waaye xam ngeen ku mel noonu kenn waru ko dégg xaalis ala kulli xaal rasul sallam mu ne képp koo xam ne dañoo yëg ne ku xir la pour jiite kenn du ko fal képp ku bëgg ñëw di laaj kenn du ko fal lii ak a neexoon ñu bindoon ko ci ministre de l'intérieur bépp jurit bu jóg ne dafa bëgg a jiite suñu réew xamoon lii d'avance ndax xam ban responsabilité moo koy xaar ca la nga xam ne moom mooy jiite jurit ñi xooloo ko mel ne Omar ibn Khattab mi daan dem di wax naan ragal naa àll ba nekk ci Irak ba yëfee jaar di fakkastalu di daanu sax yàlla dana ma ko laaj yaa ngi dégg bi mu demee ba am 63 ans 63 ans lan la ci ñun du dara ci ñun 63 ans la am mu ne ay yàlla samay at sori na léegi sama responsabilité kawe na ca ragal naa jalgati ndénkaane umma islam yàlla yàlla nañ ma jël fekk yaa ngi kontaan ci man 63 ans la faatu loolee kon ñu xamee ne mbokk julit lépp luy responsabilité l'islam ku xamul rek moo ciy xiir wala mu koy laaj loolu mi ngi noonu sunu xadisu ñetteel wa an umar ibn al as radiyallahu anhu annahu sami'a rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul omar day ibn al as mu ne dégg na yonent bi di wax ne ida xakama al xaakim fajtahada thumma asaaba fa lahu ajran heure boo xamee ne aji attekat bi atte na mu daa di def ay effort am gannaaw ba daa di dëppoo ak dëgg ku mel noonu day yàlla dana ko may ñaari pay wa in wa ida xakama waaye nag bu àttee fattahada mu def effort su ma axtaa gannaaw ba mu juum fa lahu ajr ku mel noonu du tee mu am pay mbokk kii mi ngi jëm ci àtteekatub lislaam boo xam ni xam na looy lislaam léegi nag ñu ñëw di àttewoo ci moom di attewoo ci moom yàlla dogal mu jàpp ne kii day li mu wax mooy dëgg mu atte ci loolu fekk ne yàlla tax muy atte ak xam lan la loi wax ci loolu même bu juumee yàlla mu ne dala ko fay benn fay su waxee dëgg nag yàlla fay ko ñaari fay ndax xam ngeen atte ñaar la attewoo lu baaxul ak atte ci ak jeng même suñu loi yi ñu tëral da ngay gis magistrat yi ñoom buñ jëlee loi réew mi di ko atte bokk na ñoom lu ñuy wax nous disons le droit mais nous ne rendons pas la justice mooy ñun buy nit ñëwee ñu leen di acte dañ naan lii la loi bi wax mais ndax loolu mooy acte bi war ci nit ñi déedéet mën na am loi bi moom li mu déggee ci noonu la attee fekk ne mbir yi demewul noonu masalan benn waaye ngi nii ñëw na ci benn kër ñu rey fa nit mu ñëw gis ñu rey fa nit muy génn am ko dajeeg moom ah yow yaa génne fii am na ko ñu rey fee mu ne diw laa gis mu génne fi ñu ñëw xool tey mooy moom lañ gis mu génne fi jàpp ko yóbbu ñu condamné ko ci loolu juge bi condamné ko ci loolu te fekk de yàlla xam ne jegewu ko laalu ko loolu kon ca la yonent bi sam doon wax ne bu dee attekat bi moom def na effort am mu daal di wax la nga xam ne mooy jàpp ne mooy dëgg même bu juumee yàlla da koy fay amma bu waxee dëgg nag yàlla fay ko ñaari fay loolu mbokk mooy bind bi nga xam ne jëkkoon nañ koo jël mu aju ci wàllu atte yooyu
وعن ابي بكرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحكم احد بين اثنين وهو غضبان متفق عليه وعن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقضر الأول حتى تسمع كلام الآخر فسوف تدري كيف تقضي قال علي فما زلت قاضيا بعد رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وقواه ابن المديني وصححه ابن حبان وله شاهد عند الحاكم من حديث ابن عباس وعن ام سلمه رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انكم تختصمون الي ولعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من بعض فاقضي له على نحو ما اسمع منه فمن قطعت له من حق أخيه شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار متفق عليه
kon mbokk ci xadis yi ci tege bi ci jiitu ki ñu koy nettali mooy abi bakara radiyallahu anhu qaal سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول laa yaxkumu ahadun bayna isnayni wa huwa xadbaan mu ne ngallaawaay kenn ci yéen bu mu nekk mukk di àtte fekk dafa mer mbokk xam ngeen mer bokk na ci lii paase ñu jàngoon ko ñi fekke woon tafsiru àllarba bi mooy mer dafay changer xelu doomu aadama am na ci ñoo xam ne mer ni sàngare def ci ñoom. la mer di def ci ñoom loolu tax yonent bi alei salatu wasalaam ne nit ki bu meree bu mu àtte ca loolu it daan ko wax ñu nekk palais cour suprême mais daañ ko wax xatta yow mi nekk ci service bi yow mi nekk ci kër gi yow mi nekk ci diggante ñépp ñoo xam ne da nga war a àtte seen diggante bu la fekkee ci mer nga la way bul àttee ca bokk na ci lu nit war a tàmmal boppam heure boo meree nga téye sa làmmiñ bañ a jël décision ak bari ñoo xam ne ci mer la ñu fasee seen soxna quelques heures ñu rëccu ak bari ci mer la ñu waxee nit ku lu ñaaw xatta seen wayjur quelques heures nga rëccu looloo tax ba ki gën a am xel ci nit ñi mooy kiy def effort ba heure bu meree mu téye boppam moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam dañu wax naan jàmbaar du ko dóor mu daanu waaye jàmbaar mooy koo xam ne bu meree mën a téye boppam mën a contrôler boppam kon loolu yonent bi alei salaam wax ci wàllu googee am na bu dee xadisu ñaareel bi ali ibn abi talib mooy nettali wan ali radiallahu anhu qaal qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wasallam ida taqaada ilayka rajulaan bu dee dafa ñëw di attewoo ci yow ñaari góor fala taqdi li awal lil awali xatta tasmaa kalaam al axar bul atte ñeel kenn ka lu dul nga dégg kàddu ka ca des fa sawfa tadri kayfa taqdi xel sa ngaa xam naka ngay atte qaala aliyun fa ma ziltu qaadiyan baadu bi ali ibnu talib mu ne man day ba ma yonent bi jàngalee lii dañu ma di nekk ab attekat gannaaw loolu rawahu ahmad abu daawud wa tirmidi wa xasanahu wa xawaahu ibnu almadani wa saxahu ibnu xibbaan walahu walahu shahid inda alxaakim min xadisi ibnu abbas kon noonu ko ali nettalee noonu la ko ibnu abbas nettalee lan la yonent bi alayhi salaam jàngale mooy nit ki da ngay moytu di nekk benn nopp doomu aadama heure bu nit ñëwee wax la dara ci nit rawatina yow mi góor nga yor ñaari soxna kii ñëw wax lii wala njaboot gi nga jiite nga ñëw ñu wax la lenn ci sa njaboot ngal la waay bul nekk mukk di atte tant que ka nga xam ne moom nga jàpp ne dañ koo condamné laajoo ko luy layam xoolu suñu borom jalla wa ala moom moo ne Muusa alayhi salaam sa xeet ba day fitnaal naa leen saamiri réeral na leen di loolu yàlla ko wax de Muusa bi mu ñëwee ne xeet bi lu tax ngeen di def lii ñu ne ko ñun kat bañ dajalee lañ dajale woon kazalika alqa saamiri saamiri moo ñu dugal ci lii mais Moussa ndax jóg na rek dal ci kaw Saamiri déedéet dafa jóg na ko fa maa xat bu ko yaa Saamiri Saamiri lu la ñeel ba ngay def lii mu indi lay woo xam ni tegu ko fenn alkaa nga yàlla doog a wàcc ci moom mi ngi noonu mais xoolal contraire ba mooy ba mu ñëwee rek gis Haaruna bàyyi na ko pour mu jiite mu jógee fële gis xeet bi ñëw fekk mu ñëw rek attaqué Haaruna jàpp ci sikki mbag bopp bi diri ko mu ne ko defal ndànk laaj ma ba pare gis ngeen ala kulli xaal kon mbokk attekat da ngay laaj bokk na lu borom xam-xam yi wax fitna bi yàlla fitnaal daawuda alayhi salaam mooy daawuda nekk na koo xam ni beru na ca këram di jaamu yàlla ay gaay yàkkamti ba daal di tëb miir bi ñëw toog ci kanamam daawuda xaw a sax tiit ndax xam ngeen buur toujours mi ngi ci danger bi mu xawee tiit ñu ne ko bul tiit mu ne waaw lan moo leen indi benn waay bi jóg na ko dañoo bëgg nga àtte ñu àtte ma sama waaj ndax man dama yor benn xar kese moom mu am juróom fukki xar juróom-ñeent fukki ak juróom-ñeent mu ne nag fokk danaa ko jox sama benn bi mottali ko muy téeméer daawud na ko ah ah moom de tooñ na la yaa ngi dégg tooñ na la de te moom mooy àttekat lu tey mën a waaj yow luy say mbir am déet mais le fait que mu ne tooñ na la loolu da ngay gis ne mu fassir yu bëri nee nañ fa la daaw di defe erreur très grave ba yàlla subhanahu wa taala bi mu ko fitnaalee ci loolu gannaaw mën a tuub rëccu waaye dal ngal la waaye defal loolu sa règle loolu nit mën a wax ci nit ci sa doom sa soxna sa surga sa dëkkandoo sa nangam bala nga koo condamné fexeel ba moom mañ wax jëm wax ji nga laaj ko ana lan mooy layam ba pare bari na doomu aadama ñu condamné wallaay bañ layee ñu daal di nga génne ca loolee nga leen condamné woon loolu mbokk moo aji ci xadis boobu ñu jàng xadis bi ci topp sunu yaay ummu salama moo koy nettali radiyallahu anha qaalat qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam innakum taxtasimuuna ilayya yéen ngi ñëw di dàgg sant ci man wa laalla baadukum an yakuna alxana bi xujjatihi min baad mën na am lenn ci yéen doon ñoo xam ne ñoo gën a dëgërle allah nu mooy la ngay jàngal taaral ko ba rafet ñooy gën a rafet la ay lay ci man fa aqdiya lahu ala naxwi ma asma'u minhu ba ma atte ñeel ko ci na ma dégg ci moom fa man qataatu lahu min xaqi axihi shay'a koo xam ne dagg naa ñeel ko ci aqi mbokkam dara fa innama qataatu lahu qitatan min annaar na xam ne daggaluma ko lu dul benn dagg ci sawara mbokk yonent yàlla bi moo nekkoon attekat bi gën a mag ci kaw suuf waaye yàlla dogal na xamul xaybu xamul xaybu looloo tax mu doon wax yéen a ngi ñëw di atte ci man waaw mbokk boobu ci kaw de su mënoon a wàññi téléphone bi mbokk bi wax ci kaw su mbokk bi wax ci kaw bu ñu mënoon dimbali waaw ala kulli xaal kon mbokk julit suñu seetloo ci wàllu googu mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne leen nit day mën na ñëw wax ay wax yoo xam ni bi ma ko déggee nam waxe damay jàpp ne moo nekk ci dëgg ba sax ma daa di jël la nga xam ne mooy àqu nit ki jox ko ko waaye bu ma ko attee loolu it na xam ne sawara laa ko jox loolu luñ ciy déggee benn dem ci attekat attekat bi atte jox la dëgg ndax dana tax nga yeyoo loolu abadan kërug jàmbur xaalisu jàmbur aqi jàmbur nga dem wax say wax yu taaru ba attekat bi jàpp yaa nekk ci dëgg mu jox la it xamal ne lam la jox safara la mi ngi noonu wante ne am na doomu aadama yoo xam ne bu ñu waxee rek ngeen a gongo mi ngi noonu gars yi ñu ngi ci nett li Sénégal amoon nañ ku ñu daan tudde qaadi ma jaxate kala ci ñu dàqoon a atte ëppoon fii xam-xamu xekk ma ca la bokk ñu ne bis benn waay dafa ñëw di ko porte plainte ci keneen bi mu waxee waxe waxa wax ba pare mu ne ko ah yow day wax nga dëgg de waa ji mu doon jàppanteel ñëw moom it waxa waxa waxa waxa wax xaalis ma jaxate ne ko ah wax nga dëgg de doomam ji toogoon na ko papa ñoom ñaar bu ñu waxee dëgg yow loo wax dëgg mu ne doom ji wax nga dëgg de te mooy wala rek day complexité bi nekk ci àtte ni mu jafee ndax am na ñoo xam ne fu ñu layee rek nga ne kii moo nekk ci dëgg yaa ngi dégg loolu mooy mbir yi des fois li ci gën a nekk danger nag mooy jamono ji ñuy dund ngallaawaay moytu leen journaliste yi moytu leen réseaux sociaux yi ak a bari ñu ciy tuumaan diw moo def li diw moo def li barki diw moo jaay benn waay nee nañu dee na ci àllu mbaaw bi journaux yëpp jóg waaw jabar ji nangu na moo ko rey moo jox jardin bi fetal moo jox nangam nangam dara amu ci am déet loolu mi ngi noonu aka bari ñu ñuy jël di leen tuumaal ca fekk ca suba gaa bu ñu layee rek mu safaanoo complètement ak la ñu waxoon looloo tax ba yow jullit defal ci sa règle bépp mbir buñ la indil ci mbokku julit bu ko nangu tànk déggoo version bu jóge ci ñoom loolu tax suñu borom ne ida jaakum fasiqun bi nabain fa tabayyanu day leen leerlu mi ngi noonu loolu mbokk mooy bind bi nga xam ne moom la ñu mujjoon a jël
وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كيف تقدس أمة لا يؤخذ من شديدهم لضعيفهم رواه ابن حبان وله شاهد من حديث بريدة عند البزار وآخر من حديث أبي سعيد عند ابن ماجه وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدعى للقاضي العادل يوم القيامة فيلقى من شدة الحساب ما يتمنى أنه لم يقض بين اثنين في عمره رواه ابن حبان وأخرجه البيهقي ولفظه في تمره وعن ابي بكرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يفلح قوم ولوا امرهم امرأة رواه البخاري
kon mbokk xadis yi ci tegee wa an jabir qaal qaal rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam يقول أو سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كيف تقدس أمة من لني سلل أو خيت لا يؤخذ من شديدهم لضعيفهم ñoo xam ne duñu jël ñeel ca ña tar ci ñoom ay ña am kàttan ca ñoom duñu jël ca ñoom àq ya di ko delloo ca ña ñëw doole ci ñoom وله الشاهد من حديث بريدة عند البزار وآخر من حديث أبي سعيد سعيد ابن ابن ابن حب ابن ماجه mbokk gis nañu xadis bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam day wax yàlla nu muy yëkkatee xeet sellal leen xeet boo xam ni du ñu àtte di jël àq ba nga xamee ni nii ña néew doole am nañ ko ca ña am doole nangu ko ca ña am doole delloo ko ci ñoom loolu mbokk da ngay gis ni ak bari ci loi adduna bi boo ko xoolee loi yi mi ngi nekk rek pour les pauvres soo demoon tey jii ci suñu prison yi da ngay gis ne quatre-vingt-dix pour cent yi ay pauvres lañu daanaka lu bari ci réewu adduna bi waa ji nga xam ne dafa yor alal pour mu tëdd prison lu jafe jafe jafe la amma bu ñu dellu woon ci njàngalem islam mbokk da ngay fekk ne dañu daan yemele baadoola ya gën a nekk baadoola ak ña nga xam ne ñoo gën a kawe ci kawe mi ngi noonu waxuma sax jamono xulafa ur rashidun ay abubakar ak omar usman ak ali boo xoolee jamono omar masalan omar ki mën a doon wax sànq mooy omar ibnul as jàng nañ sànq benn xadisam omar ibnul as boobu nga xam ne moo ubbi égypte liggéeyal lislaam liggéey bu rëy rëy benn bis benn doomam nekk nañ ci course bi ñuy course am kenn ci baadoolo yi raw ko mu mer ca papa mooy amiru amiru dëkk bi jël cravache ki rek cravache ko pourquoi mu koy raw ci course bi omar ibnul as radiallahu anhu sahaaba bu baax la waaye waxu ci dara xale bi it boolewu ci coow takk gileemam daa di dem ba Madina daa di nettali histoire bi Omar ibnul Xattaab na ko man day lii lii moo xew Omar ne ko ah mu ne waaw mu ne ko waa baax na daa di ne ko na nga fexe aj si Makka daa di ne Omar ibnul As ren na nga ñëw ñu daje ci aj ga sa doom diw nag boo ñëw indaalil ma ko yaa ngi dégg biñ ñëwee daje ci aj ga mu ñëw Omar woo waaji daa sama waaji anam mu ne ko kii nga doon wax mu ne waaw waaw mu ne ko waaw Omar ibnul As sa doom jii mi ngi doon rawante kii mu raw ko mu dóor ko ci kanam mbooloo mi waxoo ci dara Omar ibnul As jett loos bi Omar ibnul Xattaab jël yar bi mu daan yor daal ne sa waay kaay ci ci ci ci xale bi dama la dóoroon dumaal muy dóor Omar naan ko dóoral muy dóor Omar naan ko dóoral mu ñëw amirul muminin doy na mu ne koy dóoral mu ne ko doy na nag mu ne ko doy na mu ne am ko ja demal ki bàyyam dumal omar amiru amiru misra bi bàyyam moo tax mu duma la ndax bu dul woon nag xam nga ne yaa ko raw ci course yaa ko man kon li bàyyam nekk amiru moo tax mu dóor la dumal bàyyam bi yaa ngi dégg mu ne ko ah amiru moom ne dimbali ma rek ah loolu moom nga fegal ma ko sama xol sedd na fayu na mbokk lii ci ban njàngale lañ koy gis amul ci benn njàngale buñ koy gis loolu mbokk moo nekkoon ah loi islam tegu ci dëgg lu ñuy àtte yàlla moo tax ngi noonu mën nañu ci jël téeméeri misaal ala kulli xaal mu ne naka la ñuy xeet di mën a texee ca néew doole yi àq yi ñu yor duñ ko nangu ci ñi am tey jii suñu réew yi ana ñaati nit ña fa daje ay milliards yoo xam ne mënuñu ko justifier fenn lu ci bëri àqu miskin yi mi ngi ci loolu Omar ibn Abdul Aziz bu mu nekkee amirul mu'minin lu mu njëkk a def mooy tous les gouverneurs la dajale tëj leen ci kaso bi te ñoom ñëpp ñooy banu umayya ñoom ñëpp ñoo bokk maam ñoom ñëpp gouverneur Égypte Cham Misr ñëpp la dajale ñëw kaay leen tëj ci kaso bi na leen mboolem àq yi ngeen jël ci jullit ñi ci ay suuf ak ay jur ci alal da ngeen di signé delloo ko soo leen du ngeen fi génn da ngeen noonu loolu du ngeen fi génn ba bokk na ci li ñuy wax benn bàjjanam ñëw na ci moom na ko Omar ibnul Omar nag say mbir nag mu ngi bëgg ëpp ñii nga xam ne ñooy famille royale ah di kilifa yi nan nga jël tëj leen ci kaso bi nii nangam mu jël benn dinaar sànni ko ci taal bi mu xonq cur mu ne ko bàjjan doo jël dinaar bi teg ma ko mu ne ko ay yàlla tere mu ne ko bàjjan yéene woo dinaar bi lakk ma nan ngay bëggee may dem safara di ma lakk ah mi ngi noonu man la yàlla nattu ma jiite leen ak jullit ñi dañ ko delloo ñoom ñépp ñu signé delloo ak jullit ñi radiyallahu anhu loolu mbokk moo tax ci jamonoom yàlla indi kawtéef indi xéewal yoo xam ne nii daanaka amaatul ba suñu jamonoy tey loolu tax yonent bi alei salaam ne naka lay texee xeet boo xam ni du ñu jël ak ñi néew doole ca ñu am doole أما حديث تجيب حديث سنية عائشة رضي الله عنها قالت قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدعى بالقاد العادل يوم القيامة دانو بن أتكت بمان يوم القيامة فيلقى من شدة الحساب مدجك تراي حساب رجل بك يلي رجل ما يتمنى أنه لم يقض بين اثنين في عمره mu doon mébét ak a neexoon mu bañ a atte diggante ñaari nit ci dundam rawahu ibn Hibban wa axrajahu al-Buxaari Bayhaqi wa lafduhu Bayhaqi moom nam ko solo mooy bayna isnayni fi tamra ak a neexoon mu bañ a atte diggante ñaari nit ci benn tàndarama mbokk di lépp tamit day wane danger bi nekk ci atte yonent bi alayhi salaam mu ne nit sax dana maandu ci atteem waaye bu demee yowmal qiyaama responsabilité bi mu gàddu woon réglé ba ko ci yàlla réglé doon na mébét ak a neexoon mu bañ a nekk attekat ci dundam ak a neexoon mu bañ a atte ñaari nit ci benn tàndarma sax bu ñu doon xëccoo loolu lépp aussi dañuy won ne heure boo demee ba yàlla nattu la nga taxaw ci diggante ñaari nit war leen atte nga la way ragalal keroog ba ngay taxaw sa kanamu borom ñu lay atte mi nga noonu loolu ku nekk ci yéen war ci bàyyi xel. amma xadis bi ñu mujjoon a jàng mooy xadisu abi bakra radiallahu anhu anna nabia saa sallam qaal lan yufliha qawmun wallaw amrahum imraa nee na du texe mukk xeet boo xame ne nii dañoo jël seeni mbir ñu daal di koy jël jigéen mu jiite leen xeet boo xam ne jigéenu ko jiite du texe te it mbokk yàlla ni bind góor ak jigéen dañoo bokkul jigéen dafa am sensibilité gaaw a doon koo xam ni ay sentiment dañoo gaaw te it léeg-léeg day am lu ñu tuddee complexe d'infériorité bañ ko ko yëpp ci ay mbir anglais yi dundoon nañ ko bi leen Margaret Thatcher jiitee ñu tudd ko la dame de fer jafe-jafe yu dul rëy dund nañ ko ak moom am na ñenn ñu doon def grève de la faim di leen seetaan ñu dee ñoom ñëpp yàlla nattoo ko quelque temps après benn doomam riir ci désert bi rek muy jooy ci caméra yi ñëpp gis ko loolu mbokk dañuy won ni li yàlla wax muy dëgg te it moo ko yàlla daa bind jigéen utal ko place bind góor utal ko place góor la yàlla bind mu jiite waaye bindul jigéen pour mu jiite loolu it moo tax boo xooloon état yi nekk ci àddina même s'ils font deux cent doo ci fekk dix état yu jigéen di jiite loolu mi ngi noonu ba nga xamee ne xadis bi it buñ ko déggoon ak a bari fi ay parti yoo xam ne ay jigéen na ko jiite ci Sénégal ne dañoo bëgg a nekk jiit am déet waaye bu nit ñi xamoon dina lañ xam ne non non non jigéen kenn du ko def njiit njiitu njiitu réew mi ngi noonu ñu yeggale bunt bi insha allah
وعن ابي مريم الازدي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وزعه الله شيئا من امر المسلمين فاحتجب عن حاجتهم وفقرهم احتجب الله دون حاجته أخرجه أبو داود والترمذي وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشية والمرتشي في الحكم رواه أحمد والأربعة وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو عند الأربعة إلا النسائي وعن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الخصمين يقعدان بين يدي الحاكم رواه أبو داود وصححه الحاكم
kon mbokk xaris yi ñuy mujjee bi ci jiitu ki koy nettali mooy abi mariam al az abi mariam al azdi radiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qaal man wallahu allahu shay'an min umuri almuslimin ku yàlla féete féete la dara ci mbiri julit ñi faxtajaba an xaajatihim mu daal di def kiiraay digganteem ak seeni aajo wa faqirihim ak ñu néew doole ca ñoom ixtajaba allahu duna xaajati yàlla dana dox digganteem ak ay aajoom mbokk ci it lii muy wane njiit na ko lislaam gise woon day safaanoog lu bari ci njiiti tey ñoo gis na njiiti tey yarhamukallah ñi mën a jot ci ñoom rek mooy ay kilifa faqir tey buy mën a toog ak président loolu mbokk lu jafe la bu mën a jot président lu jafe la waaye président waroon na fexe nit ñi di jokkoo ak moom mi ngi noonu doomu aadama yi soxla yu ñu am ñu doon ñoo xam ne dañ koy xam loolu nag ku nekk yàlla nattu la ca niveau ba nga toll moo tax yonent bi ne ku yàlla féetale ci dara da doon kii président la ministre la gouverneur la lu mu mën a doon ci loo xam ne responsabilité même direction bu yàlla def nga jiite loo xam ne intérêt public la nga la war ngaa fexe nit ñi yomb am jot yomb jot ci yow loolee heure boo ko deful suñu borom nee na yow it say aajo dinaa ko bloqué loolu mi ngi noonu xadis bi nga xam ne moo ci topp mooy xadisu abi hurayra radiallahu anhu qaal laana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam raasi wal murtarshi fi l xukm mu ne yonent bi alayhi salaam day nee na yàlla rëbb na ki nga xam ne day ger ak ki nga xam ne dañ koy ger ca wàllu atte ya mbokk nger dafa nekk ci bakkaar yu garaaw ci lislaam gën na garaaw nag bu dee na ci atte waaye li tax yonent bi tudd ko it ci atte la ëppee ci atte la ëppee doomu aadama yi di corrompre ay attekat ngir ñu attal leen ci dëgg te loolu yàgg na avant sax ay loi yi di xew mbokk bi di Ousmane Camara yal na yàlla jéggal ko na benn téeréem bu mu bind di ci nettali lenn ci sunu attekat yi maam yi fi nekkoon xam ngeen amoon nañ ay qaadi muy nettali ci koo xam ne nii dafa am ak dëkkandoo bi problème bi ñu amee problème mu daal di ñëw ci attekat bi yeew fa benn kuuy na ko kat kuuy bi damaa la ko jox mu ne ko ah yow koy na sa xel dal nee na bañ demee atte ba pare bi ñu attee mu ne ko yow mi yaa nekkul ci dëgg ki indiwoon kuy bi yow mi yaa nekkul ci dëgg waa ji na ko ah mu ne waa ji na ko mbee mu ne ko mbuu yaa ngi dégg yaa ngi dégg mu ne ko waa ji di ko fàtte waaw noonu xar bi mu indi nag mu ne ko waaw waaye waa ji moom nag la indi yaa ngi dégg loolu loolu kon benn benn ak ak fàttali la ñuy fàttali rek ne yàgg na doomu aadama yi mbokk ci wàllu atte ñu ciy def loolu ba suñ jamonoy tey jii it li ngeen di dégg ci rajo ak télévision yi yéen a ma ko gën a xam bëgguma magistrat yi jël si ma waaye yéen a gën a dégg li nga xam ne dañ leen koy wax na am am na ca ñoo baax ñoo maandu ñun ca xam sax ñun waaye nag ñoom seen bopp sax daañ nangu ne am na ca ñoo xamee ni nii ah la ñu waroon a jël duñ ko jël loolu nag day commencé ca ñoom day wàcc ba ci kum mën a doon ba ci policier bi gendarme bi douanier bi képp koo xam ne yaa ngi ci place war a atte ka ñëw di la jox di la neexal ku mel noonu la muy def islam rëbb na ko lu dul ci loo xam ne lor la gu muy tegg ci wow mooy neexalu la pour jël àqu keneen waaye yaa ko bëgg a lor muy lay neexal ngir tegg lor boobee amma yow muy jël neexal bi quel que soit lu ko mën a jur xamal ne yow yaa ngi ànd ak rëbbum yàlla mi ngi noonu mbokk julit xadis bi nga xam ne moo ci mujj mooy xadisu abdullah ibnu zubayru radiallahu anhu qaal qada rasulullah sallallahu alayhi wasallam an alxasmaani yaqudaani bayna yaday alxaakim rawahu abu daawud wa saxahu alxaakim yonent bi alayhi salaam lan la attee ca loolu it fi lillahi alhamd xatta suñu atte yi teguwul ci lislaam sax dañ koy jëfee mooy heure bu attekat bi dee atte ñaari nit kii mooy chef de village bi kii mooy balekat bi kii mooy directeur général kii mooy chauffeur quel que soit seen rang social nu mu toll waaye bi ngeen ñii bi fi ñu leen di atte moom da ngeen di bokk toog bokk yem bañ atte leen ba pare lii mooy la nga xam ne mooy njàngaleem lislaam mbokk mi ngi noonu yal na yàlla subhanahu wa taala jéggal ñu ci yërëm ñu te wërsëgal ñu dund ba réew mi di atte wal islaam yal na yàlla may ñu ak maandu te ci lépp lu ñuy atte ci njaboot gi wala di ko atte ci jaami yàlla yi wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain